bu baax a baax a baax di leen ziare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen mu mel nekki nag comme ni ngeen ko xamee démb 19 novembre ca arène nationale jàmbaar production tëggoon combat boo xam ne ni yaakaar naa àddina ñoo ko doon xaar mu doxoon ci diggante Siteu tarkindaa bu jàmm gën bi ak la jatoo muy Lac de Guiers numéro 2 doomu way komba ba nag ba mu jeexee lag moom moo am ndam par avertissement parce que boo xoolee bëri nañu ba temps bi jeex maanaam bëri bu méttee méttee métti bëri bu intense boo xoolee bëri bi démb di nga xam ne ñaari mbir yi doon bëri maanaam démb ku ci ne joxe nga la nga am waaye nag la père Max doon wax rek ñaari ndamay dugg mais benn ay génn dem nag benn ba ba mu génnee fii ci way la ñibbisi ci biir kër Lac de Guiers numéro 2 kon champion ñu ngi lay félicité di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, Babacar maa ngi lay nuyu baax a baax di nuyu sa mbokk journaliste yi caméraman yi ñëpp di nuyu fans yi ñëpp. bàyyiwuñu kenn. di nuyu képp koo xam ne ngay bëggee Lac de Guiers numéro maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal. maa ngi sant ñëpp di mais la xaw a tuuti tooñ tuuti ah, jàllaa bi moom. waaw. y a beaucoup de bi avec toi. Talibé Cheikh. Talibé Cheikh. Hmm, wax nga dëgg waaw parce que boo fees wala nga dem dëkk yooyu. jàllaa bi moom macha allah. et yiw na de. Talibé Cheikh. démb bu weex nga sol balaa ngaa dem làmb ana boobu. mu ngi fi est-ce que est-ce que aw ma ci 300. yu weex yi boobu dem tegtal la woon wala da nga ko soloon nii rek pour sula pour sula. lu weex ah lépp loo gis jàmm da ciy baax di sol lu weex. parce que démb dama seetaan ci sa ay ci ci ci ci combat bi démb gis naa fi suukar ñu saraxe ko gis naa fi benn pël bu gudd bu ñu def soow xaw ma soow ma suukar sukar nañ ko ou mhm. gis naa fi pomme. gis naa fi ceeb maanaam balaa dem dafa bokkoon ci say tegtal wala. waaw mais noonu la xam nga man yooyu man du ko faral di res ñi nga xamante ñoom ñooy dox ay cadre mystique. ñoom ñoo non yooyu du ko du ko kii man ñoom lañ ma li ñu moom mooy da ngay préparer sa combat entraîner côté bi ñoom ñoo ko yor loolu ngay gis noonu yëpp xaw ma ci dara. xamoo benn fu mu jógee déedéet. xaw ma benn fu mu jógee. ngay soosa bu toll ni yow siriir bu toll ni yow. waaw. ci ndey ci baay nga ne xamoo fa mu fu mu jógee. ah bagage yi de ñu ñoom ñu ngi nii toog waaw ñoom ñoo dem jëli bagage yi indi dem fii dem fii dem fii jeex na la nga bëri koo xam ne man ci li ñu euh, euh, li am mooy yaa ko may sens muy Siteu muy xale boo xam ne na ma ko waxee laa koy waxee waat maanaam du sens du du du maanaam du sens moo ko bëriloo ak yow mais mérite la parce que da ngeen a bokk ñaari adversaire ci seen biir carrière muy Zos muy Papa Sow ku nekk daan kenn yàlla di dogal bañ na grand contre petit yow nga jël xale bi nga xam ne bokk na ci xale yëpp coow ëpp mbooloo bi ngay jël Siteu am na yeneen xale yu fi tege woon nga bàyyi leen fa jël Siteu wala Siteu rek ñëwoon nga jël ko. non Siteu la ma wanoon la moom moo tax rek moo tax ma jël ko en plus moom bokkuñu bokkuñu yoon mama am yéene pour may ko sens rek moo taxoon ma may ko sens. Mhm. waaw woon dara nag. waaw dëgg la bëri naa ñaar nit yoo xam ne daan naa leen. mu daan leen ñoom tamit mhm. xam nga la mu respecté ma moo tax ma ne naa ko may sens waaw nit boo nekkee ak say mag yàgg waxim dafa war a rafet rek ñun bañ ci tollee noonu la woon pour suñuy mag may ñu sens la fa fallu ñu respecté lañ jox leen cër cër boobu la ma joxoon moom moo tax ma ne naa ko may sens. may ko sens. Mm-hmm. mais ñu dem ba ci biir mais nag cër boobu dafa teggee ko ci biir làmb ji parce que dafa ne la dëgër dafa xaw a déstabiliser ci communication Siteu. non non non non loolu amul làmb ak loolu ñu ànd ñëw na ku nekk nañ ko yore. moom ñëw na pour jaay làmbam fekk na koo xamante ne mentalam dafa baax ñëw nañ communiqué na jaay nañ làmb ji bon yàlla def na li gën ci man. jaay ngeen làmb ji mais man balaa may ñëw sax ci euh, mbir yooyu damay ñëw ci biñ ko mayee essence ba pare ñu bëri liñ doon wax li ëpp bu dee di sénégalais nga jël huit yi wala sept yi dañ na yaa ko doole. Mm-hmm. Siteu li mu dugg du ci génn. communication boobu bi ñu koy dégg ci sénégalais yow en tant que mbër mi war a bëri Siteu loolu noo ko doon noo noo ko doon recevoir yow noo ko doon déggee. waaw mais noonu la xam nga tey sénégalais yi ñoom ñëpp la ñu gis rek la ñuy wax. yaa ngi dégg la dégg moo ko jiitu ci làmb moo ko ëpp doole xam nga c'est normal ñu wax ko mais tamit mbir mi daal yow kii euh, Babacar affaire dafa yéeme daal naa lépp lépp lépp naes na daal bëri nañ xam nga yàlla may na ma ndam ñu xoolaat leneen lu nekk suñu kanam xam nga di ci waxaat di ci waxaat nii xam nga dafay da ngay xawaree ba tas trace combat bi quoi fi mu jaar ba yegg si fii comme ah. daa am aw yoon ba yegg si fii waaw parce que combat bi daa am benn médiatisation bu ci amoon que ni Lac de Guiers moo ëpp doole si si ta masta nangu loolu démb nag bi ngeen ñëwee ci géew bi tamit dafa mel ni loolu lu mënti xew man maa ngi wax sama biir reportage que ni Siteu mu ngi tenir Lac de Guiers mhm. tey dama doon wax ne Lac Siteu mii ma gis ñu naan amul doole amul doole mais Siteu dafa mel ne néewul doole Lac mhm. non man waxuma dafa néew comme ni mu entraîné rek. liggéey na comme ni liggéey. waaw ah, liggéey na mais liggéey est ce que parce que ci biir moom moom la ñu war a wax moom lu mu yëg. mais parce que parce que moom moo doon wax aw ma doole. amaa punkar rek aw ma doole. waaye bañ dalante moom xam na lu mu si sentir. mais yow centre de région mu ngeen dalante. bon bon entraîné na. bu ñu waxante dëgg rek xam nga nit kam doo jël sa mbër pare doo jël mbër mbër ne doo entraîné entraîné moom def na ko